saytu fiche de parrainage yi ñu ngi koy wéyal ca conseil constitutionnel fukki dossier yu bees saytu nañ ko alxamis ci ngoon bokk na ci dossier Bassirou Diomaye fay nga xam ne validé na quarante mille soixante deux parrains ki nga xam ne moo di candidat coalition Diomaye président moom nag dina dem deuxième tour ndaxte dina mottali quatre mille deux cent dix neuf parrains keneen kuy dem deuxième tour moo di Abdourahmane Diouf moom itam dina mottali lu toll ci quatorze mille parrains. juróom-ñaar ci fukki candidat yi nga xam ne saytu nañ leen ñoom nag dañ leen a éliminé d'office bokk na ci amalu Seck nekk leader de As de la Nation moom nag dañ ko invalidé ndax dafa yoroon ci lu toll ci quarante huit mille doublons externes candidat Abdou Khadir Sall nekk président mouvement askanu Sénégal moom nag dossier bu mu déposé daanaka matul ndaxte yorul woon lii di attestation caisse de dépôt et de consignation Ibrahima Sall moom nag six mille vingt cinq parrains cote la valide amoon ci lu ëpp dix sept mille trois cent doublons Hamidou Thiaw président MPR validé na 21 515 parrains yoroon ci lu toll 18 981 doublons externes candidat Cheikh Dieng bu coalition Tawfekh 2024 moom tamit bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen a éliminé moom mu ngi validé 12 213 parrains amoon ci lu toll 28 000 doublons externes. ci lu soxal candidat Mouhamadou ko Koné moom nag commission bi mujjewul saytu li nga xam ne moo di dossier ma ndaxte dañoo jàpp ni clé USB bi nga xam ne moom la yoroon kenn mënu ko exploité mandataire ma di ci indi ay leeral la. dañoo dugg defuñu yàgguñu ci biir sax ñu wax ñu donnee invalides ça veut lépp lu ñu lépp lu ñu déposé ci clé USB bi ñu ne lépp baaxul sans ñu dugg ko ci application bi. voilà genre ñoom seen contrôle rapidement li def ñu gis ni ñu ne suñu données dafa am espace raison pour laquelle ñu ñëw ñu ne ñëw suñu données baaxul mu nañ wax dëkkale ne ñëw mais man damay waaw parce que peut-être mun na nekk erreur seen kaw parce que ñoom comme ñoom nee na moom dinañ ma waat te dexuñu ma benn papier donc mënu ma wax instant dañu ma recalé peut-être dinañ ma waat. li nga xam ne nag moo marqué nit ñi ci bés bi mooy teg bi ñu teg loxo candidat indépendant Thierno Cissé président major 2024 moom nag dafa déposé ab liste député boo xam ne baaxul ñu ngi ko tegee loxo ci biir locaux yu conseil constitutionnel.